magistrature bi ñu gis certaines têtes yoo xam ni tey ñëw nañu ñii nag dañu leen a jëlee fi ñu nekkoon par exemple affecté leen fu ci mel ni Tamba Matam ak ak yeneen euh, ban euh, jàngat nga gis nga am ci ci ci ci euh, changement bi nga xam ni en tout cas nemmeeku nañu ko ñi ñëw ku ci mel ne le l'actuel procureur. Euh, baa turbaang may rëcc ndax ñi nga xam ni day dañu dañu dañu dañu quitté dem fële nga xam ne ku ci mel ne doyen des juges ma xam jàlloo bu ñu ko tuddee euh, suñu xel day dem ci euh, dossier bi doxoon ci diggéem ak Ousmane Sonko Adji Sarr ñenn ñi jàpp sanction la ñii di tudd woowee sax yëf yi chasse aux sorcières yow naka nga gisee affaire yi waaw man dama ko analyser ci angle bu gën a bu gën a global Euh, parce que boo xoolee euh, peut-être côté sanction la wala du sanction mais d'abord il faut partir de la constitution mhm. parce que président de la république moom moo am pouvoir nommer des emplois civils et militaires mhm. moom il est membre du conseil supérieur de la magistrature moom mooy nommer magistrat yi moom moo leen déplacé donc il a jugé nécessaire que ni ñoom yóbbu nañ leen fi nga xam ne mooy Tamba c'est pas parce que Tamba dañ leen frustré dañ leen di dañ leen di frustré parce que Tamba aussi Euh, ville la comme yeneen ville yi. Mhm. région la comme yeneen région yi mais il faut reconnaître que ni sori na Dakar. Tambacounda ñëpp xam nañu sori na Dakar peut-être pour sori nit ñi. Mhm. pour sori leen loolu tax peut-être ñu yóbbu leen fa sanction la wala du sanction en tout cas ñun fi ñuy taxaw en tant que légaliste. Mhm. mooy c'est son c'est le président de la République qui a en tout cas le monopole pour li nga xam ne moom moo amee toutes les prérogatives de puissance publique pour nommer des emplois civils et militaire. Mhm. maintenant nag appréciation yi mën na ci mën na ci divers diversifié wu. beneen bi mooy par rapport le travail de Maham Diallo Abdou Karim Diop et juge et le le Mamadou Seck. Mhm. et consort mais ñooñu de la ak Amadou Diouf au la même li ñu apprécier comme sanction mais si on parle en tout cas des affaires criminelles commises sous l'ancien régime. Mhm. mais si une fois par exemple ñu déclencher ces procédures la mais ils vont être entendus en tant que juges mmh. parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs ils ont commis beaucoup de fautes pas d'erreurs mais de fautes parce que arrestation arbitraire yooyu noonu il faut que moom parce que ba ba mu jur ay ay manifestation ñii mhm. dee mais il faut que Mamadou Seck expliquer ñu ko mhm. la condamnation dëkk ki nga xam ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Ousmane Sonko. Mhm. n'est-ce pas ci affaire Maham jàll ci affaire kii boobu. Adji Sarr ak Adji Sarr ak Maham jàll bi nga xam ne ñëpp xamoon nañ képp kuy juré waroon xam ne dossier boobu warul woon dem jugement ak li mu jur. Mhm. ak surtout l'affaire euh, l'autre là comment dirais-je François Mancabou bi nga xam ne dañu def seen seen. Euh, seen PV. Mhm. wane ni François Mancabou il s'est suicidé. alors que ses de détenus ses co co-détenus wax ni moom loolu loolu loolu amul. ils mhm. ont ils ont l'objet de torture n'est-ce pas de xam nga loolu faux la ak usage de faux. Mhm. beneen bi mooy li nga xam ne mooy euh, l'affaire les disparus là l'autre là. Euh, Didier Badji et Fulbert Sambou xam nga le procureur à l'époque wax na ni. ñoom mën wax na ne ci biir ci biir euh, ci biir euh, ci biir kii bi euh, comment dirais-je ci biir certificat de genre de mort bi. Mhm. mooy ne mënuñu sax def autopsie. mais kan moo ne ko mënuñu def autopsie docteur bi waxul loolu donc moom en tant que juge. Mhm. en tant que procureur bi wax loolu le moment venu il pourra être il pourra être appelé devant la justice pénale internationale. pour mu répondre mu indi ci ay leeral mu indi ci ay leeral effectivement parce que loolu faux et usage de faux la parce que ju parce que moom waxul loolu. parce que médecin bi moom waxul loolu médecin bi dafa dafa établir ne ne ne ne ne kii dafa dafa génn àdduna mhm. n'est-ce pas mënuñu déterminer la cause de de la mort moom mu ne mënuñu sax mënuñu sax def autopsie n'est-ce pas pourquoi mënuñu def autopsie te moom du médecin juge kese la donc mhm. il paraît mhm. il fallait juste se limiter donc affaire yi ëpp na noonu ëpp na noonu man yaakaar naa ne juge yi ñu ñu kii ils ont commis beaucoup de beaucoup d'infractions en tant que juge parce que régime Macky Sall li fi xewoon ñëpp xam c'est pas parce que ay juge lañ nag dañ naan non non nañu bàyyi non non non. xaw xama tamit fii dañuy parce que affaire ramification y la justice pénale internationale et le moment venu ils pourront être convoqués pour témoigner parce que si on se fie dans l'affaire Hissène Habré y avait des médecins n'est-ce pas mm-hmm. il y avait des anciens avocats tout ça ils ont venu faire leur déposition mm-hmm. n'est-ce pas ñu bari defoon ñëw nañu def seen déposition parce que juge bi la chambre africaine extraordinaire daf leen woolu ñu ñëw ñu témoigner. parce que c'est des crimes internationaux. et la loi d'amnistie bu ñu ko lever même bu ñu ko lever wul la compétence de la cour pénale internationale y la compétence euh, des juridictions africaines n'est-ce pas. donc le moment venu même ñoom au-delà yi ñu wax ak sanction la. Ah. parce que ils ont ils ont ils ont je ne dis au massacre. mais en tant que juge commettre nañ ci ay ay erreurs yoo xam ne daanakaan dem na ba verser ñu ci ci ci bu ba ak det ak ak arrestation arbitraire yi. ak ni leen protéger nii xam nga fi tamit dañu protéger de trop suñu suñu suñu juge yi est-ce que loolu itam du ci indi gàllankoor. protéger comment.

internationale. pour ñu pour ñu indi ay leeral pour indi ay leeral par rapport à leur comportement défectueux. Mhm. Euh, sous le régime du président Macky Sall. ci côté boobu. Mhm. am na am na solo bu baax a baax mais euh, boo ñu ko permettre parce que li faw ñu ñëw ci muy euh, Cheikh Yérim Seck avant <laughs> may ñëw ci suñu point bi Cheikh Yérim Seck bi nga xam ni dafa génne ab livre doon am kàddu yu mu ci yëkkati mais livre bi. dafa mel ni euh, en tout cas euh, yow am na loo xam ni tey jii bëgg nga ko ci réclamer d'abord euh, livre bi mu génnee di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban ban jàng nga ci avant ngay ñëw ci loolu nga xam ni tey jii en tout cas bëgg nga ko ci wax. waa d'abord Cheikh Yérim mu li mu wax déjà du lu bees na xam nga ni Sénégal bi ku fi jàng xilaasu zahab bu Seydil Hadji Malick mhm. defe naa ni jarul ngay dem Caire jarul ngay dem Égypte naan yaa ngi fay jël jàngi histoire yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. n'est-ce